mbokki Joal Fajut ak Mboki Amateri, wër mbokki yi mbokki événement bu mag ni ñu deugmal di première édition drapeau du maire de la commune de Joal Fajut ñu koy amal les 16 et 17 juin 2023 en partenariat avec l'association des inspecteurs de la jeunesse et des sports en retraite mbokki yi lamb ju Magamak a ngi ju maga mak amal ci stade municipal François Bob mise bi nak déglu bu baax li wax millions lañ 3 millions de francs CFA moom lañ teg ci mise bi làmb ñaari fan boo buggee gis mbër kaamil mbër mu xarañ mbër yi gën mag mbër yi gën a technique ci réew Sénégal da ci làmb jooje nga xamante ni mairie bu commune bu Joal-Fadiouth dina ko amal Ñoxor alias Sène bu Mbul Laxaar à gauche El Bandit bu Mat Fapako à droite Diofior lañ mujjee daje Brosse moo ko fa daanoon daje woon nañ ren final fi mu la amee final ba mujjul woon am daje waat fii ci Joal ñu dagal leen 700000 ak fas ci poil les yi Brosse Mboru Koori Ngom le gendarme Brosse Ousmane Ndiaye le gendarme doomu Diouroup la ñoxor alliance teen mu bul la xaar dëgg Youssoupha Dramé dëkk Aliou Diouf maa siyaar waaye sama grand Mamadou jaxale gendarme maa koy siyaar Aliou kay naa ko bëgg naa ko waaye Diourbel waa Joal yëpp Edouard Djible jox le grand champion gis naa ko fii muy yëngal Arona Diène góor fit bëgg naa ko Poli Ndong samay grand lañ waaye sama grand Zak Ndiaye wala Zak Kalou Campu Ndiaye maa ngi di ko bëgg boros ñoxor Bross rakk ci garaam ba ñu kalbu le frère Mario Faye le frère de Biram waaye Lamine Faye maa koy ci Joal Lamine Faye di sama papa pap halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, le halo, entre le 17 juin et di ñëw. allo. Allez, mairie bu Allez, ñooy organisé Ñoxor Alias Daada Borosel Bandi